bokk Fada ministre de la santé de l'hygiène publique et de la prévention Moussa Sarro, du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Mamadou Labine Keita, du ministre de la jeunesse et des loisirs Sorna Seyna Ly du ministre de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance Ibrahim Assar, du ministre délégué chargé de l'énergie. Mamadou Ibrahim Lo, du gouverneur la région de Djurbel. qui préfet, à sous-préfet la région de Djurbel. Aki chef de service régionaux à département yi nga région de Durbel. ñu sant yàlla bu baax a baax wax waxati alhamdulilahi rabbil alamin bi nu yàlla jagleelee ren ñu ñëwati ci turu président Ablaye Wade teewal ko ak délégation officielle gii gi nga xam ni mooy bésu cant gu mag gi nga xam ni maam boroom Touba dafa fi jóge woon dem liggéeyali boromam diiru juróom-ñaari at juróom-ñaari at yoo xam ni jéego bu mu yëkkati rek gën na ko jegeel boromam gën na ko jaxasoo ak boromam juróom-ñaari at yoo xam ni li liggéey ak li mu bind mën nañu wax ni la ca ëpp ci juróom-ñaari at yooyu la ko def ci juróom-ñaari at yooyu itam ba mu ca jógee waxoon na ci téere bu tudd fulku ni kàddoom njàngaleem ak yoonam dana wër àdduna wërngal képp boobaak léegi xam nañ ni loolu am na ndax njàngaleem maam borom Tuuba ak kàddoom ak jëfam wër na àdduna bi yëpp wante li nga xam ni itam kéemtaan la te ñu gis ko ci màggalu ren gi maam ci itam firnde yu leer démb rek bi nga xamee ni maa ngi Ndakaaru administration bu ubbi gisuma oto bu daw gisuma sax kaaraange maanaam alkaati wala sandarma bi ma ci suma kër bu wër ndakaaru yépp ba dellu waat loolu am lumu mu wane ak lu mu firndeel lu mag a mag feet la bés la boo xam ni ñépp a ko bokk ma waxtaan ci ak suma xarit bu ma fekk suma kër muri ma yoreel jawartu daa ci gis ni sëriñ bi waxoon na lu deme noonu sëriñ bi ñaanal na ko boromam ñaan ko dara bañ ko gàllankoorati dara bañ ko bundu xalaati wante itam bés bu nekk rek ba ba muy ba ca àjjana ga gën a sell bés bu nekk doon feet doon feet ci yoonu murit doon feet ci àdduna bi yëpp te loolu yàlla def na ko ren li ko fësal naam mooy décret bi nga xam ni président Ablaye Wade jël na ko muy décret bu def màggal gi jour férié chômé et maanaam fête goo xam ni kenn du ko liggéey wante dañu koy fay ñëpp fonctionnaire yeeg yëpp ku dul jullit ak kuy jullit ci yem kuy murit ku dul murit ci yem ma ngi décret boobu dafa ñëw firndeel décret ba nga xam ni yàlla suñu boroom jëloon na ko Cheikh Ahmadou Bamba ci ñaan gu nangu ñaan gu nangu ñun ñëpp mu laawaale ñu ci biir décret bii nag dafa am sax lu mu làmboo ndax am nañu naan euh, loi moo waroon a am wante décret am na décret yoo xam ni ñooy jiitu loolu daan na am ci jamonoy colonisation ba ren nag ñu gisaat ko mën nañu wax ni décret loi ndax dëgg bi ci génnee incha boo xam ni dafay saxal da ba nga xam ni moom la ñu màggal de Touba jour férié loolu nag di kéemtaan itam ndax décret loi wala décret boo xam ni loi wa jay topp gëj ko gis ci temps wu beneen kéemtaan bi nga xam ni gis nañu ko mooy wàllu koom-koom ñépp dañu daan gis ni bu feet mësaana am koom-koom dafay wàññeeku wala dafay naax saay yàlla def sëriñ bi bi nga toogee ci palaas bi diggante daaw ak ren mu am ay borom xam-xam yoo xam ni dañ leen di wax expert ci wàllu koom-koom ñu gëstu gëstu bu am solo gëstu boobu firndeel ni bésu màggal gi koom-koomu Sénégal du wàññeeku koom-koomu Sénégal dafay yokku sax dañu koy ful manam centre de gravité bu économie au Sénégal fay déplacer wu yow fi ci Touba ba nga xam ni bésu màggal gi li ñuy wax croissance muy koom au Sénégal dana tollu li muy jur ci bésu magal gi ak ñaari téeméeri milliards wala ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk lolu di kéemtaan ndax mosuñu gis ci at ñu yëpp bés boo xam ni dana jur ñaari téeméeri milliard wala ñaari téeméer ak juróom fukk ma ni xanaa kay kon yeneen bés ci at mi croissance dafay jël escalier wante bésu màggal gi moom croissance ascenseur lay jël ba nga xam ni mën nañu wax ni la croissance est en fait le jour du magal maanaam du bésu magal gi rek mooy feet wante croissance mooy feet koom-koom woomal mooy feet ci bésu màggal loolu itam di beneen kéemtaam boo xam ni danañ ko gis ci jawartu sëriñ bi waxoon ko waxaaniyal baaxi bihi subura tijaratan ladayhi lan tabuura kooku yaakaar naa ni suñu mbokk commerçant yi ak suñu mbokk móodu móodu xam nañ ko bu baax a baax a baax te duñu xëy suba mukk te xasida googu yëkkatiwuñu kon nag loolu gëstu bi nga xam ni expert yi nga xam ni ki leen jiite sax yaakaar naa ni nekkul ci yoonu murit fesal na ko muy beneen kéemtaan ñetteelu kéemtaan bi moo di tey jii foo dem ci àdduna bi kër maam borom Touba ñu nga fa foo dem ci continent yi ci àdduna bi yëpp daa fa fekk ay kër borom Touba daa fa fekk itam ñuy màggal bés bi jullit yëpp di ko màggal taalibe yëpp di ko màggal ñeneen sax di ko màggal ndax xeewal yi mu làmboo yi mu làmboo ak barke yi nga xam ni làmboo na ko kon nag ñëpp war nañu wax jërëjëf maam borom Touba Serigne Sidi Mokhtar xalif général kullu murit ba nga toogee ci jalbeeg léegi bu weesoo kéemtaan yi nga xam ni tudd naa ko léegi président nee na ñëpp ràññee nañu itam ni am na ay yeesal ak feeñal yoo xam ni ñépp ñoo ko bokk gisandoo benn moo di bés yi nga xam ni jiitu na màggal gi bés yu nuy waajale màggal gi muy loo xam ni ñépp teg nañ ci seen bët fii ci biir Sénégal ak ca bitim Sénégal ñëpp bokk ko muy itam ay exposition ak i forum daje waxtaan yoo xam ni ñëpp gis nañu ko ci université yi ak ci palaas yi ñëpp gis ko wante ren lu ci gën a yéeme dëgg mooy conférence internationale bi nga xam ni def nañu ko sur le soufisme nga xam ni ñu jógee ci juróom fukki réew ak lu topp ci àdduna bi ñëw nañu fekke si ko conférence ba nekk lu yéeme ba dajale ñoo xam ni bu dul woon conférence ba fii ci Sénégal du ñu toog bu benn place du ñu daje muy ay salafit ak i sufi ak i siit ñoom ñëpp daje ci benn place te loolu di kéemtaan goo xam ni liggéeyu maam borom Touba moo ko waral daje yooyu yëpp nag ak taxawaay yooyu yëpp sëriñ bi gis nañu bu baax a baax sa jawriñ gi nga xam ni moom nga boole loon ak délégation bi président la république yabaloon pour ñu saytu mbiru màggal gi mu di sëriñ Cheikh Bass Bassirou Abdou taxawaay bu mat sëkk macha allah taxaw na taxawaay bu rafet torop ànd ko ak njabootu maam borom Tuubaa yëpp ànd ko ak sa njaboot yëpp ànd koog seex yëpp ànd koog taalibe yi yëpp kon mën nañoo seede ni sëriñ bi nga xam ne moom la ñu doon liggéeyal def liggéey boo xam ni bu mucc ayib la pour waajal màggal gi ak pour bés bii nga xam ni moom la ñu nekk diggante démb ak tey kon ñu seedeel la ko ñu ngi ko santaane woon. pour mu boole taalibe yi boole këru diine yi yëpp ci Sénégal ni nga ko taxawee ak di ko waxee ak di ko doxe bi nga toogee fii ak léegi ak mu joxe sa kàddu di kàddu jàmm di kàddu booloo di kàddu liggéey def na ko ba mat sëkk kon président Abdoulaye Wade nee na dellu di la seedeel loolu di ndokkeel itam ci turu senegaal yi yëpp ndax Sénégal soxla na taxawaay bu mel ni ci sa bos muy kiiraay ci Sénégal Sénégal soxla na kàddu yu mel ni ci sa kàddu muy kàddu defar di kàddu booloo di kàddu jàmm ci Sénégal di itam kàddu liggéey lu développé lu woomal Sénégal ni ko sëriñ bi santaane ci yoon muy ngëm liggéey ak jaamu yàlla loolu rek moo mën a yëkkati réew loolu it moo mën a yëkkati diine lislaam ndax yàlla suñu boroom ci mbooloo rek la def yërmandeem yëpp kon nag suñu Sidi Maxtaar ñu ngi dellu ci turu président di la sant ci taxawaay boobu muy taxawaay bi dal xel dalal na xelu jullit yëpp dalal na xelu taalibe yëpp dalal na xelu Sénégal yëpp moo tax président Abdoulaye Wade ni xelam dal na bu baax a baax kon nag mu ngi lay ñaan nga continuer di ñaan démb ko tey dikkul ñaanal Sénégal ndax jàmm bi baawaan ci Sénégal sax fi ba faaw ñaanal Sénégal ñaanal ko ndax sumb yëpp naal yi sumb yëpp yàlla may ko kattan ak wér gu mu ko àggale ñaanal Sénégal ndax xol yëpp booloo nekk ñëpp takku ci siraatal mustaqim ak santaane maam borom Tuuba santaane nit ñu baax ñi ci Sénégal ñëpp ñu ngi sant ñëpp di balu àq ñëpp wa kullu aamin wa antum bil xayr wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu jërëjëf ministre de l'État maître Ousmane Ngom ñu jox kàddu gi Cheikh Mouhamadou Bachir mu yëkkati ay kàddu ci turu xalif général des Mourides ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké dem a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 أصحاب الصلاح ممثل القيادات والمرجعيات الدينية والحركات والمنظمات الإسلامية أصحاب السيادة ممثلي فخامة رئيس الجمهورية والحكومة السنغالية أصحاب السعادة السفراء وممثل الدول الإسلامية والسابقة أصحاب السيادة الإخوة في الإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسعدني أن ألقي أمامكم باسم سماحة الخليفة العام للمريدين الشيخ السيد المختار بكي حفظه الله ورعاه هذه الكلمة الذي التي أفتتحها برفق أسماء آيات الشكر والتقدير إلى كل الإخوة والأحبة على ما بذلوا من جهود مادية ومعنوية أسهمت إلى حد بعيد في إنجاح هذا الحدث الإسلامي الوطني الذي يقام هنا سنويا تحديدا لذكر الغربة البحرية التي تعرض لها العبد الخديم وهي محنة, محنة حولتها قوة صموده رضي الله عنه وحسن تحمله إلى منحة ربانية جلبت له من المنن الظاهرة والباطنة ما فرض عليه إعلان يوم الثامن عصر من سفر تاريخ بدايتها يوم الشكر السنوي ندب الجميع وعاشوا معه ومع ذويه من بعده أجواء الاحتفال بهذا اليوم الأغر منذ ذلك الإعلان وها أنتم أولي أيها الإخوة والأحبة تنسجون على منوال الآباء والأجداد بهذه المشاركة الإيجابية المشرفة التي يقدرها سماحة الخليفة العام ويهجونكم بها الحسنى والزيادة اللتين وعدهما الله كل من أحسن في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا bokki جلدي بوكي تالبي بوكي yi سري سيدي المختار الحليفة العام wal muridiya ñu ngi di nuyu nuyoo lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ni ko jëwriñam ju tedd ji waxee Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne mboolem lu woon kàddu yi nga xam ne jëm na ci soññi taalibe yi ni ñuy war a ànd ak Serigne Touba ak ni ñuy war a bu tedd bi leeral na lépp jottali na lépp. kon li ñu def rek mooy sara kàddu yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ko ci bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi yéen mboolem kilifa diine yi ak njiitu mboote mbootaayu lislaam yi bàyyi ko ci biir ak bitim réew wuy si wooteeb sëriñ wax na ne mu ak ngërëm lu rëy ko ci yéen ci mboolem taxawaay yi ngeen am ci bis bi te muy loo xam ne dara jiituwu ko ci luy luy rafetal ak a dëgëral al uxuwatul islam yi gi mu boole ni ko suñu boroom digle ci wax ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum sëriñ bi wax ne ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di fàttali na mu ngi ko waxee woon rek xam le ne jullit yëpp ni ko suñu boroom waxee ci alxuraan te rasulullahi ñëw andi ko Sëriñ tubaa daan doxe noonu ba tax ñëpp xam nañ ci taarix ba nga xamee ni tubaa yu bëggoon nañ ko jiital ci lislaam ci Afrique ak xarbu afriqiya Sëriñ Tuubaa nangu ko ndax da leen wax ne loolu bu ngeen ko defee day mel ne da di tàggaloo juddi gi kon sëñ Seydou Moukhtar wax na leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm te fekk loolu nga xam ne woote woon ko ci ñeen ñëpp bu loolu jàllee ci turu sëriñ bi mi ngi nuyu ministre d'État ministre de l'Intérieur moo tax Ousmane Ngom ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal teewal fi njiital réewum président de la République moo tax Abdoulaye Wade sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu daan seedee la fi kanam mbooloo mi ne mboolem lu mu sàkk woon ci yéen fi lu yéewu nag màggal gi defe ngeen ko ni mu ko bëggee woon kon nag ñu yóbbante ay cant ak ngërëm yu rëy ci anam gu gën a rafet ci président ñu ko xamal ne mboolem li ñu doon séntu ci moom ci màggal gi sëriñ bi defal ko ni mu ko bëggee kon nag ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm te di ko ñaan tam ci barke Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mi nga a ne moom la yaakaar te jël léppam jox ko te barki dem rek mu yeesalaat ko yaakaar ji mu yaakaar Sëriñ Tuubaa yàlla ko bu ko sunu borom tas di ko gërëm bu baax itam ci bisu màggal bi nga xam ne ci toogaayu sëriñ bi nekkal ci sëriñ Tuubaa la ko def def ko muy fet réew mépp bokk ko muy loxo ne naka jekk daan nañ ko séntu di ko xaar neen bu ko sant di ko gërëm di ko ñaanal defal ko yooyu lu gër ci barke sëriñ Tuubaa ginnaaw bu loolu jàllee itam mu wax ne mi ngi jot li yow ministère d'état yow mi nga xam ne yow la président defoon joxoon digal ngay sant ngay saytu mboolem laaj ci biir màggal bi doon coordonné lépp mu de a xamul ne sa taxawaay ci bis bi mboolem li nga xam ne waroon ko def def nga ko na mu gën a rafetee ba loolee ba mboolem liñ ci motuñu ko ci jàmm. di nuyu itam mboolem yi nga xam ne président joxoon na leen digal ñu ànd ak yow liggéey bi ñoom itam mboolem kenn ku ci ànd ca war def nga def ko ca. sëriñ bi neen mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ñu ngi nuyu itam mbooram corps diplomatique bi ci seen teewaay ñoom sax ñu ngi jégalu ndax sëriñ Tuubaa bu xasee ba teew ci jotaay waratu ñoo toog di xaar waaye am nañ lu ma ñaari waxtu ci dëkk bi bi ñu demee ba tolloo corniche bi circulation bi xat ba fi la mënu ko nga agsi jabar na ñu jël si waaye dëkk bee demee noonu ndax màggal gi foo xam ne ay millions di tafee dëgg noonu rek la mën a demee ñoom itam ñu leen di sant bu baax di sant itam mboolem ñi fi teewal parti politique yi ci réew yëpp mooy ñi nga xam ne ñooy almuarada ñoom ñëpp itam sëriñ di leen sant di rafetlu seen teewaay di sant itam ñu tudd seen bopp société civile ñooñu itam ak mboolem organe de presse jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñëpp seen taxawaay rafet na. sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm la jaabi ñoom itam ci li nga xam ne def nañ ko ci màggal gi bisu sëriñ Tuubaa sëriñ bi wax na ne ginnaaw bu loolu jàll itam mi ngi sant mboolem kilifa yoon yi muy ñëw bokkal sëriñ Tuubaa te xam ngeen ne yi tedd yëpp ñu toog ci wetam ànd ak moom bis bi xam ne lépp seen yëfa sëriñ bi nee na mi ngi leen sant di leen ci seen taxawaay ci ñu àndee moom jàpp ko Serigne Touba di gërëm itam mboolem seexi Serigne bokki Serigne Touba yi nga xam ne Serigne Touba moo àndoon ñoom ñu doon ay mbokkam ba noppal ko Serigne Touba defar leen ñoom itam ñëpp kenn ko ci ne yaa ngi fi teew ak mboolem seexi Serigne Touba yi nga xam ne seen maam Serigne Touba moo leen joxoon lañ yor ñoom ñëpp tam kenn ko ci ne am nga ndaw lu la fi teewal jotaay bu xat beeg ak baas bi moo tax ñëpp mënuñoo teew ci biir jotaay bi waaye ñi fi teew ñëpp Serigne bi naan ñu leen sant leen gërëm. دكرمة موالم طالبي شرين تواي الدائرة الشيخ الخادم يب شموالم جيث لنا خلوني يوكي جيثكم جيثكم شرين تواي سرين بوحنا لي بوليان جيسا نجيث التنف انجرم جنك شموالم نتاهو أن يام تخوان شمجل موال مجل بي دفنة خير خير بوحنا موجيكو بنا مجل شموالم بيسي واتي يبولو الكوشبير يوم مرد ndax Sëriñ Tuubaa diirub mu nekk ci kaw suuf ginnaaw bis yi nga xam ne bu ñu yegsee julli yëpp ànd di ko màggal lu mel ne Korite ak Tabaski ñaari bis rek la Sëriñ Tuubaa daal digle ñu di ko màggal mooy bis yi nga xam ne da koo jagleel yàlla sunu borom muy màggal gi ak bis bu mu jagleel Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy gàmmu gi te loolu mooy. ginaaw bu ko yàlla defalee ndam ci biir aljihaadu silmi bi mu doon def ak noonu lislaam yi dafa jël xalimaam bind ne katabtu ma sabti inda dalwa baada jihaadi wa firaaxi lbalwa الحمد لله الذي قد راد لينعد وساق للأغراد الله دفع وحنا mu جهاد ci ay natu أكتس lépp جهاد maa ngi sant yàlla mu mënatal sama noonu ba lu ñu bëggoon ci man amuñu ko dolli ci am mboolem lu mu bëggoon doon ko doon ko wut mu defal ko ko ni mu ko bëggee mu daal di wax ne rabixtu ti tijaarati fii xulbati liggéey bi ma doon defal yàlla ak rasulullahi ci biir tukki bi yàlla defal na ma ca fay ma ca la nga moom laa ci woon séntu ak la ma ci woon kon nag fa ashkurul mukrima inda tubbati mu na kon nag bu ma delloo sama réew bu ma bàyyeekoon fas naa ko yéenee sant sant gu yàlla lim ma defal sant gu màgg moo tax mu wax ne na nawaytu sukkurahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam ashkuruhu shukran bi fardin wa sunan ma wa inda daari terminal mu ne am na yéene sant ko ju diggante Tuubaa Daaru Salaam ñaari barabam yi nga xam ne lu jiitu lu jiitu mu dem ci tukki bu tedd bi fa la nekkoon doon fa jaam boroom ba li ko may lépp mu am ko waaye mu mu a ci biir wax ji ne cant googu nag bu yeggee ci du ko def ak di ko defloo fas sa yéene dara du ca génn jëf ju yàlla faratal ak jëf yéen jëf ju yonent bi sallallahu alayhi tax sëñ Sidi wax ne lii nag moo tax bis yi am ci noonu dayu bi ba képp koo xam ne saa su accès nga ànd ko am noonu dundal ko balaa na wax dara danaa nu la sant gërëm la ginnaaw bu loolu jàllee nag mu ngi yëkkati kàddoom ci ñetti wàll ba ci jiitu mu ngi nga jëm ci mboolem kilifa yi jiite ngir adduna yi ak mboolem kilifa yi yi di leen ñaan ñu maasi ci taxaw ci luy indi ak tasaare jàmm ci mboolem adduna bi ci xeex ak moytu lépp luy waral fitna ak ay ngir xam ne fépp foo xam ne jàmm amu fa. ña fa nekk du ñu tane jàng yàlla du ñu tane liggéey ndaw ña fa nekk te jàng du ñu tane jàng nee na lépp li waaye du wutu te wutewu ko jàmm boo ca jotee te yee ko daan la yomb waaye lépp li waaye du wut te amee ko si gisit na bis dana ñëw la la ko la la ko joxoon xañ la ko borom bar bii nag borom bar borom bii nag di xaadimu rasul wax na ne lii may jàmm fii ci àdduna ak si ñu jëm ci alaxira mooy fu waay nekk nga yéene ñëpp lu baax di wax foo toll lu baax luy defar ak may jàmm ci te boo boole ci itam di ko jëfe te koy àndal itam na doon nitu jàmm kuy wax ak a yéene ak a toll lu baax assalaamatu wal aafiyatu fi dunya wal axirati fi niyati al xayri wa xawli al xayri wa fi'li al xayri wa mulazamati ahli al xayri ñaane it ñu ngi wax mboolem ñu bokk suñu gën a boole suñu bopp mu nekk benn te taxaw ci tam lépp luy aar diine ji ci mboolem lu koy xeex ak ku koy xeex nee na itam na xam ne jafe-jafe yi ñu dund li ñu bari bari suñu maasee dellu ci yàlla wéeru ci ñoom sax ci li mu nu digal tey moytu li mu tere dana nu andi saafara yoonu suñu bu yëpp ndax suñu borom moo wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaytu laa yaxtasib nee na ñu ngi dellu si ci lu soxla réew mi di ñaan autorité yi ak mboolem ñu yëngu ci wàllu jëm ci njàngu ndaw ñi ñu tàggal ñu tàbbal ci programme daar daara yi yor diine te lépp lu ñu mën a jàngit ñu boole waale ci toq leen tàggat leen ci yar ak teggin ci seen wax ak seen a jëf ak jikko woo jikko yu baax ndax nee na yàqu yàqu yàqu yàqu yi ci sunu jamono ji dara mënu si yéen musal ndaw ñi lu dul yor diine nee na it mu ngi digal ndaw ñi ñu farlu ci sàkku xam mu ànd ko njub ne ko Sëriñ Tuubaa digle ne yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu alil hudaa wa bil ulumi istaxilu ci wàllu jàmm Sëriñ Tuubaa joxoon na ko yitte lool ndax xam ni mu amee solo ci diin ak àdduna moo tax ba mu jugee la jël raaya jàmm yëkkati ci leen xamal ñëpp ne moom nitu jàmm la te jàmm rek lay wote lépp lu ñu liggéey itam ci jàmm la koy liggéey loolu li koy firndeel moo di barabam bi mu jëkkee sanc di suufu eh, Daaru Salaam la ko tuddee muy fiir ne kon moom kuy woote jàmm la ci atum mille trois cent quatre hijriya ngir wane bu leer na moom nitu jàmm la ci jàmm yi lay woote te di ko firndeel ci ay mbindam ak i waxam ak i jëflanteem ba àgg ci di ñaan borom mu gindi ci moom ak njabootam ci lu dul muy jëfandikoo ay yaar yoo leen di jooyloo bii di ay yaari bi bu ko ba kon noonu tuumaa nee day woote jihaat weddiwu ko waaye leeral na jihaad bi mu woote ak la mu ci jublu xam le na ne jihaadam ngir yàlla rek la soxlawul nguur yittewul suuf jihaadam jëpp xam-xam la ak ragal yàlla inni ujahidu bil ulumi wa bi tuxa abdan xadiman wal muhaymin shahidu ay ngànnaay nit duy la du du luy damu yax baa muy tuur deret waaye jaasiyam mooy tawxid ay keno mooy alquran ay xeejam mooy alxadiis nabawi ay fettam mooy fiq ajina minum gaayam li koy gëstul sekkar yi mooy atasawuf sunni mu wax ne bu bu noonu yoree ay ngànnaay yu tax ñu ragal man samay ngànnaay mooy yooyu te damay wéy di ci jihaat Sëriñ Tuubaa nag anam gi mu tànn ngir di ci jihaat ñu ngi ko teg ci xam jamonam ak tolluwaayam ak déggam diina gu rafet diina moom yi nga xam ne léppam jàmm la aw turam di ak salaam gi firi jàmm ñoo bokk cosaan ci arab loolu di wane bu leen na lislaam jàmm am na ci bu rëy jàmm yëpp ci la jullit yi di daje ci la ñuy tàggoo ci la ñuy ubbee bépp jotaay buy am ci seen biir ndax seen nuyoo ñu ngi koy tàmbalee ci asalaamaaleykum moom la ñu nuyoo saa bu ñu dajee ci bar wa isa jaaka allasina yuminoon bi ayatina fa qul salaamun aleykum ci biir aljana itam moom la ñu fay wa taxiyatuhum fiha salaamun sunu borom itam bu ñu dajeeg ñoom moom la ñu ko nuyoo taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaamun solu si jàmm am ci lisaan nag bokk na ci tax sëriñ bi tànn ko mu yoonu jihaad yi mu jaar te taxawalu ci yoonu murid yi nga xam ne yoonu tasawuf wu tege ci sunna taxaw ci gannaaw ak jàpp ba am ci réew mi wàccuwaay boo xam ne umpatul kenn am jeexee lool ci réew mi ci anam yëpp rawatina social ak politique ak koom moo tax ci wàllu jàmm tey tey ci wàllu jàmm Serigne Touba wees na wees na leen foofu muy ci ñuy tuddee Martin Luther King ak Mahatma Gandhi Serigne Touba wees na leen foofu ndax ñoom dañoo jëloon jàmm def ko pexe. ngir mën a àgg fu jëm Sëriñ Tuubaa nag dafa am pexe bàyyi ko fi wut jàmm ni ko ko kenn ci ay noonam seere noonu te arab yi dañuy wax ne al xaqu ma shahida bihi al a'daa muy tubaab bi ñuy wax Antoine Martin Arthur Leslie nekkoon commandant de cercle Jurbel mille mille neuf cent treize mille neuf cent quinze moom ngeen déggoon mooy xotti sàkkiti njëriñ mi ngir jot Sëriñ Tuubaa ba xam ci li mu nekk dafa wax ne la def Cheikh Ahmad Bamba quwwatun fitriya la tastati'u al-aqlu an yufassirahu ñaar Sëriñ Tuubaa am na force bu ko sunu borom bindaaneel boo xam ne doomu aadama xamut fu mu jóge nee na topp gi ko nit ñi topp ak bëgg gi ñu ko bëgg nag moo leen jural lépp loo xam ne digal na leen ko ñu jëf ko te duñ ci xalaat nee na itam maa ngi wax ne ci gën a jàtt xel wala ci gën a insistance mooy ci xool Sëriñ Tuubaa di ko askanale moo bëgg na ci dara ci nguurub àdduna wala lu ko nguur nee na nag maa ngi wax ne yonent ak borom jamono yi li ñuy màgg màgg ak li ñuy siiw siiw bu ñu dellu siwaatoon ci àdduna dañuy ñëwee Sëriñ Tuubaa ci jikko yu ko yàlla defal jikko ji nag mooy xam ab woon ab soppam ak noonam day yéene ñëpp jàmm di yéene di jëf ñëpp jàmm wax ne maa ngi wax ne yonent yooyu ak ñoom nga xam ay borom jamono lañu li ñu màgg màgg déclaré woon nañ ay guerre sainte te amuñu woon genn wàllu doole gi Sëriñ Tuubaa am ci wàllu adduna kon nag loolu dem leen seere soosu ko kooku defal beneen ba ci topp mooy yeesal bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa andi na ko ci diine lislaam ndax moom kone xam ne woote a ab tarixa ku jëm ci yoonu yàlla la woon nag léppam ay xar baax la waaye tay damaa tànn genn kiimaan goo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko def ci wàllu xam-xam ak xel ak xalaat moom loo xam ne waaye jamonoom baaxuwoon ko woon te te di loo xam ne tey jii sa suñu jamono ji képp kuy gëstukat wala kuy xalaatkat wala kuy bindkat ngir jëriñ sa réew wala saw xeet mën na laa jëriñ rawatina suñu jamono bii nga xam ne jamono li ñu tuddee aw na ma la kiimaan yooyu nga xam def ci wàllu xam-xam moom laa bëgg leeral ndax am solo ci taarixul fikri islam bi ndax sëriñ ci wàllu xam-xam moo di dafa nafaraat jàngaat mboolem xeeti xam-xam ak mbir yi ak xalaat mboolem borom xam-xam yi ñu ko jiitoon ni ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi ba ci jamonoom ni ko doomu soxna yi daa defee waaye nag li ko wutale ak ñoom ak waa jamonoom moo di dafa bàyyi woon xel ci wóote goom ci diggante ñaar yu bokkul ci nga xam ne buy defar ak jàngat li mu fekk ci lislaam day jël lépp la mu ko toxalee la mu ko fekk du tey du sopp dara ak koo xam ne buy jàngat day bàyyi xel ci li jamonoom soxla ak la mu aajowoo ak li yitteel waa jamonoom mu mën a saafara seen i jafe-jafe moo tax loolu nag Sëriñ Tuubaa li mu doon sagal li mu li li li mu doon nafar da koo segg ci ginnaaw bi nga ko jàngatee segg ko ci ñetti bën bën yoo xam ci la segge li mu doon nafar benn bi mooy alxuraan ak ak sunnatu nabawiyya أقواته عصره أو مجتمعه طمع يريا لتجمعنا أقواجنا نتي مسؤول بسجع موالم مدير أخيات خمخ موشكم أبو موالم خلعت برو خمخ يكجر سلا وخنا ظهر لي أن لعت سلاما بالكتاب وبحديث المصطفى صلى الله لأهل الزرع والتجارة وعارفا أو يحتوي البشارة ولجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثير ذنبهم فلا تواخذه بما لا ينقصك وله يحب المسلمين ينفوق man fi ji nag la sëriñ bi jàngate mboolem ndonoon lislaam bi mu fekkoon lu mu gis mu dëppoog alxuraan ak sunna ak réalité jamonoom ak ni saafara jafe-jafe waa jamonoom du koy jëm lu wéteeg alxuraan ak sunna ak lépp loo xam ne waa jamonoom arjowuñu ko du koy jëm fa bàyyi mu mel ne xuloo bi nga moo doxoon si borom xam-xam ci digg ñi doon xëccoo mbiri siyaasa ak farfarloo ci seen xalaat ak biir ñeneen ak lépp loo xam ne dafa jaxasoo al hadar al xadaaratul arabia mooy li ñu tuddee civilisation arab, nga xam ne amul lu woon njëriñ waa Sénégal Sëriñ Tuubaa kon moo jëkk xàjjale diggante diine ak civilisation muy la am solo ci wàllu gëstu ak tarif ba ca doon ko wax bu ñu seetee ne Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne dafa bàyyi toppaate dafa sóobu yoonu tasawuf waaye jëfandikoo wala mën xëj bu yàgg ba ba xam na moom la suuf yaa ngi fi daa jëfandikoo te mooy mën xëj wala xaayida mu jeexadu bi nafsi bi nga xam ne moom la ñu suufaan ci alxarul awal min hijra jur bi ma suufee ci taarix bi ma tudd ba tey rek euh, moo nekk mën xëjul mbooleem suuf yaa ngi ci yi nga sa jàll bi Sëriñ Tuubaa dikkee rek moom ci la indiwaat beneen mën xëj ko xidma am seetloo mu wëte lool ak jafe-jafe ak xew-xew yi nga xam ne moo amoon ci jamono sëriñ bi ak ci sowu jant rawatina Sénégal loolu bokk na ci li war a sëriñ Tuubaa jëfandikoo beneen manhaj tuddee ko xidma li nu war a leeral fii nag moo di sëriñ bi ginnaaw bu mu ko ci xidma def ko muy manhajama taxul moo dàq manhajul mujaahada waaye da ko yeesalaat ba noppi yaar salaat maanaam ba mu mën a dëppoo ak mission bi ko taxaru ju كاو سوف موتاخ مو وخني الحمد لله الذي صرفني بلطفه من بدع للسنه وبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء بكرس نك من جاي شدي جنتة شريها أك حقيقة نخم جنة برام خم خم يو عربي دنيو خجلو نياري سريج مو بيمودي كي تفخلا ندي جنتة شريها أك حقيقة يسوب لولي عندي وارو وطني ndax ñoom ñaar kenn mënta dem bàyyi sa morom moo tax mu wax ne fa waajibun ala al ibadi turra jamhuma li kay yanaalu ajra kon moom yëngul rek ci boole leen waaye daa wax ne boole ne ñoom ñaar waajib la ci diine looloo taxul bi mu sëgoo yoonu tasawuf wutali boroom daa gis ne digganteem ak boroom dara duxu fa mu dul lu dox diggante ak jaam ak boroom kon li ko war ci moom mooy jaamu ko na mu gën a sell te bañ koo bokkaale dara wala leneen noonu mu gisee digganteem boromam moo waral mu woote ak mboolem suufiyanke yi ko jiitu ndax ñoom ni ñuy dégg woon jàmm yàlla mooy dox wutali asamaan ngir mën a yegg ci kaw bàyyi ñi ci kaw suuf bàyyi jaamu yàlla ci kaw suuf ñi nga xam ne moo taxoon suñu borom sàkk leen ci kaw suuf te kenn yàlla suñu borom dafa bëgg ñëpp jàmm ko ci kaw suuf loo looloo waral Sëriñ Tuubaa seet yoon wi gën a gaaw gën a wóor ci seet yàlla moo di toog ci kaw suuf di jàmm yàlla ci anam yu gën a rafet bokk doomu aadama yëpp seen soxla ak seen tiis ngir jëm yàlla booleeg lépp loo xam ne moo leen di jëriñ fii ci àdduna ak ëllëg di àllaaxira noonu la Sëriñ Tuubaa boole woon jafe-jafe réew mi ak mbooleem li ko doon gàllankoor ci ni mu doon jaamu borom ak ni mu doon liggéey la rasulullah ginnaawam ci kaw suuf ndax Sëriñ Tuubaa jaamu suñu borom ak doon rasulullah ci la taxoon mission jub te loolu moo di xeetali jaam ñi ak tasaare yërmande sunu borom ci mboolem bi ndefi moo tax moo wax ne alxaq ahmad abudullah rabbal alamin inshaahu bi xidmati lhaadi amin lajee rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu def ko mooy aw yoonam bu kenn musula jaar ci seet yàlla moo tax rasulullahi dikkal ko wax ko ne na bàyyi ja na bàyyi jàngale kese te tërbiyee nit ñi yéegi leen mooy li ñuy tudde alhimma yitte mooy composition ak jomb ak jomb ak sax ci lu baax ak jomb def lu bon yitte mooy ragal yàlla martu dëggal bu sëriñ Tuubaa di mabbaxi mabbe tabaxi aada moo tax mu wax ne nasaftu binaa almayni bil xaqi madihan li fardin ala xulfin wana anhu daydanu xadamtu baatilan bi xaqin a zahaq wali ilahi kasa saqida boobu ba tey nag ci la nit ñi séddale ko ci ñaar def ñaari kuréel bii kuréel tànn himma mooy nangoo toog ci sëriñ bi mu raxas seen ndax ba mu set mu duy leen kuréel ba ca daal dem laxas ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir waxee fa dahaba jullu baxiyal xul sëriñ Tuubaa nag dafa dikk ngir xàjjale xam-xam bi am njëriñ bi ak bi ko amul ña tànnoon yitte toog fi sëriñ bi xam-xam bu amul lool fekk fekk si leen xam-xam bay lore daw leen xam-xam bii lore nag mooy bi nga xam ne mooy tax nii ci di jaxase xam ak li suñu borom bëgg na afarayta man ittaxasa ilaaha wa hawahu adallahu llaahu alaa sabiil ñaar ñooñu nag ñaari kuréel yooyu ma tudd lu ñu dañ di werante waaye seen résultat moo leen di atte ñii dañoo gëm may sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi gëm am kilifa gëm toppante kuréel bi ci des nag def seen yitte yëpp ci bëgg leen yee te ñoom yéewugoon ci ay nelaw bëgg leen yee ndax ñoom gëmuñu xidma moo tax seen yitte jëpp mooy di leen seetaan ak di xool fu ñu mujj ak seen résultat fu ñu mujj mu mel na ñooñu seen xam-xam mooy xam-xam bi ware mooy jàngal nit mu muy nebbi ay ayibam bañ koo faj ci di di wéy ci pexem mën a nax ak maasam mel ne koo xam ne dafa wér di nekku malaat di nax moroomi malaatam bi bëgg a soppil ku médecin waaye xam ngeen mu mujj du am solo kuréel bu njëkk bobu bi wax nak fu yoonu mourid ak gi ñoo ko fàggale mooy seen tool yi ak sen dayri ak fonk ndigalu Serigne Touba ndax Serigne Touba moom taalibe bu dogu te engagé ci moom bu agsee ci képaram dang fa fekk payob yàlla guru jeex mu mukk ajurul lasi ma indahu la yanfadu wasalli wa ma atarahu nafadu ngërëmu Serigne Touba nak ni muy feeñee ci ab taalibe moy da koy defal teraaga ju antu coono takfir xuyoori bi la ki daay mën a dund ci lislaam yu ànd ak jàmm ak teraa nga xam yàlla bu wér bu faatoo mu tabbal ko àjjana te kenn du koy sàmm lii lépp nag bu jeex te ku toog ci Serigne Touba mu fekk na fi waaye nag da ngay wut Serigne Touba ba si waaye euh, kenn du sëriñ Touba euh, kenn du ko topp te jiitu la ci yàlla ndax yàlla boo koy wut da koy wut ba mu fekk da ba mu def si la ci li ngay bëgg. waaye doo doo doo wutee yàlla dara. dañuy wax xaaral ak. ak ak ak wasila ak lépp te gisagu kenn gisagul li waral ñu ñàkk woon Sëriñ Tuubaa te waxtu wu ne mu wan lu tax ñu gën ko wóoru ndax murid moom mu di tàn tànn ci sagoom la décision bu tiis la ndax moo bëgg dem ci pexe ak man-man lu def Sëriñ Tuubaa muy sa pexe moom nag ñenn ku bàyyi sa bopp te nekk ci moom mu wutu la ci sa moo tax njëriñu jébbalu umbatul kenn ndax résultat yi ñu ko def ñoo ko neyal jébbalu nag moo jaay sa bëgg-bëgg ngir bëgg-bëgg sëriñ bi ni mu ko def ci yàlla ak yonent bi biatu muraadi yóbbu muraadillahi wa muwasarati rasulillahi jaay naa sama bëgg-bëgg ngir bëgg yàlla ak mbëggum rasulillahi bëgg yàlla nag lu ñu di def ci ak coobare loo tax am murit mënu la waxal sëriñ bi fu mu yem ci ak dundam wa maa salabul ixtiyaari li xusni wannihi bila inkaari moo tax yoonu murit yoonu jaayante la waaye du yoon woo xam ne nit day seet lu ko neex wala lu mu bëgg rek mu doxal ni ndax la ko sëriñ Tuubaa digle yoonu noonu la a doxe te inna allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna koo xam ne dangaa jaay sa bakkan ak sa alal ngir ko jëndee ko àjjana na nga xam ne moytoo dara sew kon Sëriñ Tuubaa nag yàlla li ko def mu ndab loo xam ne seen réalisé digganteem ak jaam ñu gërëm li mu leen defal ci àdduna nag moo layal li mu leen di ci kon nañu wéeru ci moom te jox ko suñu suñu lépp te bañ cee desal dara ndax waxoon na ca Mauritanie wax sëriñ Aliou Seyna ko Aliou mu ne ko Mbacke mu ne ko bëgg nga limal na ci yéen yi am Sénégal mu daj na ko dajale ma mu dajale ñëpp ñu agsi buñ lim rek sëriñ bi ne ko du mu wax ne. li ma ci jublu de mooy suñu borom damaa xam ne balaa nag ni si déwén danañu fekk ci Sénégal ci ak ci yéen li ma si jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne dig naa leen ko ci àdduna bu àll jee doon ko gis li ngeen di gisee ji nag ni ngeen di gisee loola daane fii ma ko nag kenn du yàlla dogal na am na ci lenn magum taalibe moo xam ne dafa wér waaye ci kàttanu yàlla bu baaxul seen Tuuba dafa wéraat ba ñibbi si Sénégal ba door a faatu kon loolu mooy mbiru seen Tuuba kon nag ñun ñëpp nañu maase ci gën a farlu ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waxee léegi topp ci ginnaawu sëriñ bi tedd bi yëpp fi nekk nii di sëriñ Sidi Mokhtar nga xam ne ku xool jëmmam wala nga agsi moom mu delloo la ci yàlla suñu borom boo ko gisee xam ne jëmmi sëriñ Touba mu sotti bi ñu toog lépp loo xam ne bëgg na ko rek suñu borom dana ko def ndax ñaari ay la ci ginnaaw ñëpp yëg na ne Kodaga dafa duggoon ñaan na ko ci mu wax ne ñaan la ci suñu borom. yaakaaroon nag màggal nañ ñu ba jeexal na kenn déggul benn cas choléra choléra kon nag loolu wane na moom ku jubóo góoroon la li ko si commencé ci moom te xamee ko moom kon ñu ñaan mu liggéey dem di jàmm dañ cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa ca yàggal fi sëriñ bi yàggal fi mboolem jëmul Sëriñ Tuubaa fi yàggal fi jullit yëpp suñu mbokki ambassadeur yi nga xam ne ñëw nañ itam sëriñ dana ko limaat léegi ndax limoon na leen ndax ñoom itam ñu ngi leen masaw ci coono yi xataay bi lépp sa biir waaw ñu ngi koy indi liste bi waaw bu ñu ñëppee ba sëriñ bi ñaan ba ko ñoom ñëpp toog ñu may ko mu génn mbàkke noonu ñaan yàlla bëggal sa fan te may la wér li nga sëmb ci sëriñ bi am na بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ يرحب بالضيوف الكرام أصحاب السعادة السفراء والسلك الدبلوماسي ويتأسف لما حصل من التأخر ولكن أقول سماحة الشيخ يرحب بالضيوف الكرام أصحاب السعادة السفراء و أعضاء السلك الدبلوماسي ويتأسف لما حصل من التأخر ولكنه كان مضطرا للدخول في الحفلة لأن اليوم هو يوم الجمعة المبارك ويرحب بكم وفي مقدمتهم عميد السلك الدبلوماسي سعد السفير اللبناني وسفير فلسطين وسفير بريطانيا وسفير موريتانيا والوفد الرسمي القادم من الحكومة الموريتانية وسفير بوركينا فاسو وسفير جزر القمر وسفير ألمانيا وسفير غينيا وسفير الاتحاد الأوروبي بل وجميع السفراء المعتمدين في العاصمة السنغالية يرحب بكم مرة أخرى ويتأسف لهذا آه، آه، التأخر ويشكركم على على المشقات التي تجشمتموها للحضور إلى هذه المدينة المباركة الطيبة وشكرا لكم جميعا سلم بكم